الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bokk yi ni teelu ci silatu rahim askanu njaxate noo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyooy te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah nuy dikkaate yéen ci seen jataay bii di kaay jàng nu ciy jàng téere bii di laxdar yu tey di sunu bind ñeent fukk ak ñett kon ba tey noo ngi ci bunt bi mujj ci téere bi muy baabun fi sahwi di bunt bi nga xam ne moo lay jàngal boo defee njuumte ci julli gi noo koy defaree bindu bi mi ngi tàmbalee ci waman shakka hal huwa fil witri aw fi saniyati shaf'i jaalaha saniyata shaf'i wa sajada ba'da salaami summa awtar waman shakka ku hal huwa ndax moom fil witri mi ngi ci wiitar aw fi saniyati shaf'i wala mi ngi ci ñaareelu rakkaab safa jaxalaha def na ko saaniyata safa ñaareelu ràkkab safa wa sajada te mu sujjóot baada salaami ginnaaw sëlmal ba summa awtar topp mu wittar ñene képp koo xam ne dangay ngay julli safa ak wittar di sikk sàkka ndax rakka bi nga nekk wittar la walla ñaareelu ràkkab safa la nee na boo boobaa ni ngay def mooy da ngay jàpp ne yaa ngi ci ñaareelu rakkab safa rek boo sëlmalee nga sujjoot ba'da salaam dooga def wiitar wa man takallama bayna safi wal watri saahiyan fala shay'a alayhi wa in kaana aamidan kuriha wala shay'a alayhi wa man takallama ku wax bayna safan ci diggante safa wala wattiri ak wiitar saahiyan mbir mu muy aji jamuj fala shay a dee dara alayhi di ko war wa in nekk na aabidan di aji tey kuriha na ko wala shay a te di ko war ñu képp koo xam ne dafa wax ci diggante safa ak wiitar ci njuumte dara du ko ca war bu fekkee nag wax nga mu wax moo ko tey nee na def na lu ñu sib waaye dara du ko ca war wal masbuuqu in adraka maa al imaami aqala min rakaatin fala yasjudu maahu laa qabliyan wala baadiyan fa in sajada maahu batala salaatu wal masbuuqu ku ñu raw in adraka ndeem dab na maa al ak imaam aqala lu gën a néew min rakaatin ci rakka fala yasjudu déet muy sujjoot ma hoo ànd ak imaam laa qabliyan déet sujjootub qabla wala baadiyan déet sujjootub baada fa in sajada ndéem sujjoot na ma hoo ànd ak imaam batalat yàqu na salaatuhu julleem ga ne ko xam ne imaam da ko raw ci julli gi te bi mu ñëwee ànd ak imaam amul lu matub rakka nga xam ne kon daal dabul julli gi nee bu fekkee imaam dafa def luy waral sujjootub xabla walla luy waral sujjootub baada bu ko imaam di sujjoot bu mu sujjoot ànd ak imaam moom na jug rek julli jullig boppam waaye bu mu ànd ak imaam sujjootub xabla bu mu ànd ak moom i sujjootub baada bu fekkee nag dafa ànd ak moom sujjootub xabla wala sujjootub baada kon bu boobaa julleem yàqu na waaw ndax moom dabul rakka bu mat ci jullig imaam nga xam ne kon moom bokkul ci julli gi moo tax kon njuumtali imaam def ba waraloon muy sujjóot qabla wala njuumtalim def ba waral mu war a sujjóot baada loola moom yoonam nekku ca moo tax ba ko di sujjóot moom du sujjóot ànd ak moom day toog rek xaar ba imaam sujjóot ba noppi ba sëlmal mu jug moom tàmbali ak julleem wa in adraka rakaatan kaamilatan aw aksara sajada maahu alqabliya wa axara albaadiya xata yutimma salaata fa yasjuda baada salaamihi fa in sajada maa alimaami aamidan batala salaatu wa in kaana saahiyan sajada baada salaam wa in adraka ndéem dam na rakaatan ab rakka kaamilatan bi aji mat aw aksara wala lu ko ëpp sajada sujjóot na maahu ànd ak imaam alqabliya ko jóg qabla ga wa axarate mu yeexe albaadiya ko jóg baada ga xataa yu timma ba dana mottali salaatuhu julleem ga fa yasjuda muy sujjóot baada salaamihi ci ginnaaw sëlmalam neena bu fekkee ne dab na ci jullik imaam rakka bu mat lu ko ëpp bu imaam defee luy waral sujjóotu xabla bu koy sujjóot day ànd ak moom bu fekkee nag imaam dafa def luy waral sujootu baada bu imaam di sujoot du sujoot ànd ak moom waaye day yéexe sujoot ba ba mottali ak julleem ba noppi door koo sujoot fa in sajada ndéem sujoot na maal imaam yi ànd ak imaam amidan mbir mu aji tey batalat yàqu na salaatuhoo julleem ga wa in kaana ndéem nekk na saahiyan di aji jamu sajada sujoot na baada salaami baada salaam bu fekkee nag bi imaam di sujoot sujootu baada dafa ànd ak imaam sujootu baada ba te tey ko ak julleem day yàqu bu fekkee nag dafa ànd ak imaam sujootu baada baada ba ci njuumte kon bu boobaa euh, baada salaam rek lay sujoot wa in sahal masbuqu in sahal سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني